d'accord d'accord euh, Fatou ci lay ñëw moom moo ngi wax congrès moo ngi wax programme daanaka sax ñi nga xamante ne ñëpp ñoom lañu fi dalagul dans 2024 mm. ne dañuy yootu wala sax dañoo bëgg euh, jiite réew mi di jàppale ñi nga xam ne jiite réew mooy suñu ñëwee wax fi xamante ne askanu Sénégal dinañ ko dinañ dinañ ko mën a dégg mais est-ce que du tamit chaque fois c'est le même discours qu'on ressource dinaa changer dinaa changer dinaa mm. changer mais donc réew mi daa dara dox fii ba ñu bëgg changer lépp <laughs> waaw y' a beaucoup de problèmes nag euh, mm. Cheikh au mm. Sénégal mm. te di déglu euh, yenn kàngam yi wala ñenn ñi bugg a jiite réew mi dina la euh, mën a may mm-hmm. nga natt un peu ce que xam nañu fii metti man bi ma dégloo maître par exemple ci wàllu industrie mun naa mm-hmm. mun naa ci confirmer parce que fu mel ni Sotiba bi mu tudd man sama pap liggéey na fa j'étais toute jeune mais jamono boobu je me rappelle tabaski bu jotaan wala korité ñëpp wax la ñuy sol parce que Sotiba dafa doon produire Sénégal dafay bay coton fu mel ni boori Tamba ak mm. boori Casamance Sénégal euh, mm. waaw de am nañu am nañu coton coton boobu nan lañ koy def léegi dañ koy export dañ koy exporté mm-hmm. parce que baa nekkatu fii keneen kuy defar ay tissu nekkatu fi NSTS dee euh, ñëpp dee nañu mm-hmm. li ma bëgg a wax mooy euh, réew mi ñàkkul alal réew mi ñàkkul ressource mm-hmm. problème mu gestion la ñu am xoolal géej gi ñaata kilomètre de côte la ñu am léegi Mauritanie gii bu ñu mayul jën du ñu togg ceeb wala du ñu def yaasa Casamance soo demee même seen jën yu ndaw yi sax léegi ñu ngi ciy am problème pour dire que foo laal dafay metti oru euh, euh, Kédougou bi xosantoo fii la fi yëngu keroog ba ba ay bakkan rot mhm. or ba ni mu fay génnee buñ la ko waxee da ngay teg sa loxo ci sa gémmiñ mhm. et fa muy jóge duñ ko sax gis parce que mhm. ca gannaaw lañ koy awale yàpp ci roppalaat mu génn réew mi pratiquement secteur boo dem mbay mi ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi suuf sañu yor moom lañ naan doñeet jox ko ñeneen. Euh, mbiram ndengleer foog naa fàtte buñ ko fi donc euh, ñoom dafay baax ñu di leen déglu xam est-ce que ñi vraiment xam nañu euh, fi réew mi toll xam nañu fi metti population bi tamit loolu dina leen may ñu mun a ñu mun a ko c'est vrai que nag ñoom ñëpp dañuy dañuy diggee. Mhm. ci état bu promesse lañ toll malheureusement mënaguñu teg lenn suñu loxo lu dul ne wax ñu ñu gëm. Mhm. mais pour man li am solo mooy élection bi ñu jëm. ku nekk mun nga wax mais critères yi Cheikh euh, Jérôme mhm. critère fal nit ki pour man moom la ñu war a xool les Sénégalais doivent apprendre et pour man la bonne occasion la meilleure occasion en 2024 apprendre à choisir leur président mhm. si ay critères yoo xam ne du nekk affectif wala politique réew mi li ko gën a nasaxal li ko gën a yàq mooy mal gouvernance mooy kii day détourner ay milliards du mujj fenn ñu jël ay contrat mi minier jox kee jox kële ay occasion wu exploiter ressource réew mi te waa réew mi duñ ci gis seen bopp téléphone bi ñuy wax ñaata yoon nga fi dégg scandalu jaay licence euh, euh, téléphone mhm. loolu di leen permettre ñu mun a def yeneen transaction di teg ci askan wi ay frais yu diis a diis mais est-ce que yow gis nga sa bopp ci milliards yi ñu jaayee milliards yi ñu jaayee licence de pêche yi milliards yi ñu jaayee yeneen licence yeneen mhm. contrat yeneen permis d'exploitation est-ce que gis nga ci sa bopp est-ce que xam nga nu mu demee est-ce que am na benn retombée boo xam ne yëg nga ko fi daanaka benn secteur doxatul ni mu ko waxee lu dul service yi te loolu euh, ay marocain ñoo ko moom ay turc ak yeneen nationalité yoo xam ne bu ñu amoon ñun euh, croissance su cent pour cent pour cent yi wala quatre-vingt-dix-huit pour dafay dem parce que croissance la boo xam ne toogu fi moo tax mun nañ la indil ay taux de croissance yu extraordinaire mais boo xëyee dem marché saa waay bu ma yóbboo sama pañal li ma daan daj barki démb ak démb dafa gën a métti keneen ak keneen noonu donc loolu voilà léegi nag sénégalais yi pour man 2024 moo war a nekk occasion pour ñoom mm. ñu jàng tànn président tànn bi ñu teg ko surtout comme ñun détournement ak luubal mooy suñu problème ñu xool gars yi maire Tine mos nañ ko jox benn direction <laughs> non ñu teg mu mu mu nekk suñu premier critère man bi président Macky Sall waxee na du bokk ba tey mm-hmm. ma ne c'est une bonne occasion ndax duñ fi nekk di di di di fal l'élection est très ouverte du ñu falaat ki fi nekkoon c'est la première fois ñu am élection boo xam ni le président sortant n'est pas candidat à sa su à succession donc ñi ci nekk ñëpp presque dañuy yem chance mm-hmm. nañu xool ku ñu mus a dénk Cheikh euh, Jérôme nga luubal buñ la dénkati pour man loolu moo war a njëkk nekk critère bi ndax programme moom non programme maître Tine mun na wax programme am hmm. suba keneen dégg ko ñëw copier ci nga ñëw mu wax la ndax boo dégloo ay programme rek hmm. euh, mun nga réer ndax ñoom ñëpp aussi ci réew mi lañ nekk xam nañ fii metti hmm. xam nañ problème yi sénégalais yi di jànkonteel xëy na am na ñoo xam ne yëguñu ko une certaine classe mais ku nekk ci Sénégal di gis ni réew mi doxee ni ndaw ñi di demee nga xam ne euh, nappkat yi dañoo amatul jën amatuñu jën mais seeni bakkan a ngi des ci géej gi parce que foo daan dem ay cinquante kilomètres léegi dangay ngay dem au la pour nga mun a am jën et même boo amee jën tu t'en parce que li ngay dépenser dafay mujjee ëpp li nga xam ne moom moo moom mooy revenu dañuy dem léegi nag loolu yëpp ñoom je pense que xam nañ ko mais ñun daal fi ñu mën a defee la différence sénégalais yëpp manko ñu ne comme ñun suñu euh, problème lii la mhm. te ñoom ñëpp buñ ñëwee wax nga ne gongo amul benn programme boo fi dégg te doo ci am yaakaar parce que dafay neex a dégg vraiment njarum nopp bu saf suukar la dafay dafay jàll quoi <laughs> mais nañu xam xam ni ñuy tànnee dañ am na glace day sedd day day neex mais nañu tànn je daal am na am na lépp <laughs> donc pour man daal wax ji wax ji du programme yi c'est bien beau nag nga wax nit ñi aussi foo leen jëmale que boo ne topp leen ma tam mm. da ngay wax fan nga jëm ak ñun mm. te tamit wax bu yenu maanaa soo ko déggee da nga koy xam mm. ku la ne man xam naa sa jàngoro Euh, solution yaa ngi nii nga xam ne lii mun na ko faj parce que euh, honnêtement man li ma dégg euh, maître Tine wax ko. Mhm. mun naa ne doy na ma lu mën a nekk la. lu aussi yenu maanaa la. parce que mhm. tam réew munoo permettre rek ñeneen di ñëw di wut. Mhm. te yow say say doomu réew nga leese leen tey am na yow loo xam ne munoo dem bitim réew am ko fa. mais fii ngay gis nit ñëw fi jóge bitim réew di doxandeem am fi titre foncier yow mu fi dëkk munoo fee am 150 mètres carrés boo tabax dëkk. c'est un problème donc meññ yi ci réew mi Sénégal man gëw ma a réew mu ñàkk la même avant pétrole ak gaz. Mhm. Sénégal du réew mu pauvre ñàkkul ni ñu doxalee yëf yi moo baaxul jël alal bi di ko def ci yoo xam ne du priorité di toppandoo yeneeni réew ci seen confort te yooyu réew demal xool bala ñuy defar ay pont ay autopont ay terre est-ce que am na réglé wuñu yenn problème yoo xam ne yow yaa ngi koy am ba tey. Mhm. yow boo defaree yenn yi te sa sawaa waa dëkk suuruñu wéruñu buñ faj buñ feebaree dañuy am problème. Mhm. mu faj. daanaka problème la gën a jur demal bi muy wax CMU dama ne bu xamoon CMU feebar bi mu indil hôpitaux yi ah kenn dootu ko tudd beaucoup d'hôpitaux sont malades mm-hmm. les hôpitaux aujourd'hui sont malades à cause de la couverture maladie universelle mm-hmm. parce que dañ leen ameel ay bon mm-hmm. am na ci yooy dem nga gis ko indi CMU même carte yi mag ñi doon fajo da ngay ñëw duñ ko jël Mm. parce que état mi ngi leen ci yoreel bor yoo xam ne ñoom dañu am problème loolu nag mooy différence su candidat yi mm-hmm. parce que ñu dañu xam fan la ñuy jëlee xaalis bi cest tey ñoom dañu songu ay sànc yi nga xam ne mm-hmm. chaque fois muy entreprise muy loolu mm-hmm. dañuy financer sécurité sociale financement wu sécurité sociale. bi ñu tegee ay règles est-ce que RSE yi sax ñoom ñoo ngi koy respecté déjà. non RSE yi. RSE e du dara RSE sax volontariat la. xam nga RSE e moom RSE mënoo ci wàññi kenn genre publicité la genre publicité mm. ngay def moom moo ñuy wax marketing social. Mm-hmm. maanaam da ngay jaay sa bopp et tout ça. Mm-hmm. mais am na leneen li nga xam ne moo nekk avant RSE bi. Mm-hmm. moom mooy étude d'impact environnemental et social. tey sànq euh, dama amoon. donc euh, benn émission ak seen naataango yi nekk mhm. côté Wokam mhm. ba may dem ma jaar ci wetu Sacré Cœur foofu piste bi ma gis nit ñu bëri ba fa war naa sax dafa waat ay événement ay manifestation mhm. diggante suma gars yi suma mécanicien yi ma déguerpir ah, d'une certaine manière tey aujourd'hui est-ce que mën nañu wax ban intérêt public moom moo pousse état mu jékki-jékki ne ñoo ñëpp dañ leen di génnee fii alors que suuf soosu wala site yooyu dañ ko nar a jox ay promoteur ñooñu tey dañu am benn finalité mm-hmm. sociale bu ñu leen yóbboo jam ñaajo xaaral ba oto yu paan fii mais njaga njaay yéeg jëpp parce que amuñu système de transport bu dëgër ñooñu ñoo koy réparer mm-hmm. donc dañu am fonction sociale bi nga xam ne dañ koy dox ci région de Dakar ñooñu tey euh, waxuma euh, rôle social bu ñu doon dox mm-hmm. mais ay économie économiquement voilà. de tiennent des foyers d'une certaine manière ñu jékki-jékki dañu jël toxal leen jagat-jagat leen parce que tout simplement il y a cinq ou six promoteurs yi nga xam ne dañ leen di jox suuf si ñooñu ay millions BRT bi moo ko moo ko tax a jóg ñoom c'est non bi du BRT bi du BRT bi explication yu joxe non xam nga dañu waxoon ne juin la ñuy inauguré mais tamit jox nañu préavis aussi tamit dañu waxoon dañuy inauguré donc BRT bi moom fu mu war a jaar tracé beeg station yëpp monté nañ dem hmm. xam nga nañu waxante dëgg fii hmm. kenn mënu fi nax kenn ñëppay hmm. sénégalais rek sit yooyu chaque fois bu amee site fii Dakar expérience bu ñu randalee mécanicien yi boo amul supermarché bu fa nekk gars yi dogat dogatee nañ terrain yi séddoo ko ay building taxaw loolu moom mooy politiku prédation économique loolu aussi moom la ñu bëgg ñu dakkal ko et loolu aussi mooy différence entre ñun suñu candidature ak mhm. yeneen candidature yi parce que euh, ñun duma ne peut-être dañu yor un peu un parcours comme lay Wade mhm. mais en tant que en tout cas en tant qu'avocat bi nga xam ne je suis dans les affaires internationales di gunge ay ay fonds d'investissement yeneen yooyu mhm. xam naa tey état bu bëggee am xaalis fan lay dem te tey xam naa ay nit yi nga xam ne tee nañ ay koppar di xool dëkk bu sûr bu am sécurité juridique. Mhm. fi nga xam ne pare nañ pour investir moo tax ma ne tey comme nu ko Fatou doon waxee su amu ñu problème mu terre amuñu problème mu main d'œuvre nit ñaa ngi fi liggéey la ñuy wër. Mhm. tey. gouvernement bu capable indi mécanisme bi nga xam ne. nit ñi danañ liggéey. loolu lañ soxla. d'accord mm. maintenant pour terminer Jérôme mm-hmm. juste euh, euh, trente secondes. Mm-hmm. Euh, fi ma doon bëgg a jeexale bi ma naan Sénégal ñàkkul xaalis. la tudd RSE responsabilité sociétale d'entreprise loolu lu lu ñuy def la rek de manière volontaire jàppale askan wi parce que mm-hmm. peut-être yaa ngi ci environ yi di fa di fa générer ay ay ay revenus. mais les exonérations on n'en parle pas. ñi war a fay ay impôts ñi war a fay Sénégal avant pétrole bi hmm, gaz bi mais nous sommes un pays qui ne vit que de taxes et d'impôts hmm. mais mënuñu comprendre ni ko met waxee ay ay nit ñu am alal ay multinationales hmm. ay nit ñoo xam ne li ñuy euh, génnee ci xaalis tuuti nga ciy teg mu nekk budget réew mi ñu leen di baal ay impôts loolu c'est un problème du Sénégal et je pense que bu ñuy wax yorin bu sell di wax tamit euh, nit ñoo xam ne euh, bëgg seen réew leeral nañu ko préserver seen ay intérêt dëkk euh, amuñu ci sekki sàkk foofu lay amee importance parce que bu ñu ko defulee euh, continuer ci nii euh, fal pour x raison sans que ñu xool nit ki fi mu jaar ak gëm-gëmam ak rigueuram ci wàllu gestion du ñu génn ci ci